bon sama dernière question ngi nii culture général encore toujours ak le grand champion Double Less numéro 2 bu tontu Balla dopage mbirum dopage ndax lu ñu tere la ci làmb ji wala lu ñu terewul la ci làmb ji ak lu tax ñu tere kooku lan moo ko waral. waaw dopage même bu dul làmb sax si sport sport yëpp lañ ko tere. sport yëpp dañu tere dopage mais Sénégal te ñoo ngi wax dopage mais dafa am lu ñu si réere mbir bu dee si wàllu làmb ji la parce que mbër muy préparer combat am fii Sénégal xam nañ ni yenn vitamines yu bari amu fi yenn lekk yu am vitamines yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg si mbër muy préparer kii combat sport de haut niveau da nga war a am régime bu baax a baax a baax parce que mbër boo si gis naa damay entraîner deux fois wala trois fois par jour loolu lii yaram sidit la ak yàpp ak yax dafay am lu mu soxla di ko dundee li xam ne boo entraîné ba pare moom da koy soxla pour nga mën a am récupération bu doy boo boo dellu suwaatee mën a def li nga doon defaat li nga doon li defaat li nga doon def muy maanaam protéine mais mba mm, boo nee protéine sax ñu yaakaar ni moom mooy dangay doppewu wala affaire protéine du doppewu complément d'aliment la parce que dafa am ay fruits de mer yaa xam ne ak affaire yu bari yu ñu ci def si biir yaa xam ne amul wala Sénégal yi farata lu ñu di lekk loolu mais dopage bi mooy piqûre yi gars yi di piqûre yi ak doom yi gaa yi di naan ak même piqûre yi sax dafa bëri ay façon sax ana maanaam daal bu ñu waxee anabolisant rek bàyyiwul dara yooyu la gars yi di tere mais nekkul protéine mais léegi léegi da nga ah bëri dañuy naan protéine ñoom ñëppay dopage c'est faux protéine ak dopage bi bokkuñu protéine day dimbali yaramu nit même ku dul mbër sax da koy jël même boo bëriwul sax da nga war a jël pour sa yaram dundu naay yi yan nit ñoo wa nekk wala ñoo war a nekk ci néeg bi nga xamante ne fële mbër ma di takka ngembam bala ma dem làmb ja ñan la ñooñu gaay dinaa sawar tontu trop parce que nit bu nee nit rek dafa doy waar surtout mbër mu war a takk ngemb boo demee ba war a takk ngemb fi nga war a nekk sa mbokk yi la jege dëgg dëgg dëgg ñoo fa war a war a nekk ak sa ay ñi nga xam ne sa ay nit ñi nga xam nga am confiance yi ñoom ñoom ñoo la war a jege jour bi nga war a di dem làmb ji ak fi nga war a takkee lan mooy waral ñu arrêté combat balaa temps bi di jeex très souvent lan moo koy waral. waaw Père Tapha lu koy waral toujours blessure moo koy waral nga damm si loxo wala yaa xam wala nga am yenn nga jël yenn coup yu métti ba mënatoo bari wala sa bët gisatul toujours moom boo àggee foofu lamb dañ koy arrêté sans temps bi jeex. waaw champion waajtaayu. maanaam préparation mystique bi mbëri di def ci biir géew bi avant ñuy bëree est-ce que nekkul loo xamante ne mën na déconcentrer mbër mi sa xel dem feneen mbaa nga jaxasoo wala tamit lu baax la ba tey ci biir làmb waa baax na si benn côté mooy am na supporters yi bare affaire yooyu noonu wala amateurs yu bari loolu moo leen neex si biir géew bi comme ñëw comme yow man souvent dama daan teg say ay kaset di ko seetaan seetaan naa sa combat yoog Tyson yaakaar naa da nga ñëw waaj nii daf ñuy ñëw ba jub arbitre bi arbitre bi di wax nii bay wax ak Tyson nga tourné wanaat ko ginnaaw dem xam nga njaab yooyu noonu si biir kii bi ak sotteeku daw fëggatu kii mbër yu bari dañ koy def rafet na quoi neex na trop si làmb mais des fois yow mbër mi nga dem ba mujj bi mu génnee la làmb ji. yan façon entrainement ñoo gën a baax te mbër mi war koo liggéey bu kombaam jegesee maanaam mbër mi. su combat am jigasee yan façon entraînement la war def ba nga xamante ne bu ñëwee ci bisu combat ba yooyu dina ko amal njëriñ. waaw mbër bu dee comme préparation bi nii def nga sa ay musculation def nga sa lépp ba mu des ay semaine yu mujj yi bu dee semaine bu mujj bi la loo si amul woon ci commencement ba doo ko am si semaine bu mujj bi kon semaine bu mujj bi entraînement bu yam nga war a def entraînement bi mooy ay boo xëyee nga dem footing daw daw daw daw tàlla si di def ay mouvement étir def étirement ba sa yaram yëpp tàlli nga ñëw nga soogay ñibbi si bu ngoonee nga dem def sa contact def sa ay tactique yi nga xam ne mu nga war a bëree mais waratul laaj yenn entrement yu métti métti yi semaine bu mujj bi comme boo entraîné lundi mardi mercredi bi jeudi ba vendredi waratoo si def dara lu metti mbër mi nga xamante ne tey jii ci biir bëy dañ ko wër ndomba. yan possibilité la am pour génn ci wër ndomba bi ak yan possibilité la am pour am ndam ci wër ndomba boobu ñu ko wër ndomba. waaw wër ndomba père dafa nekk lu garaaw te nit ñi xamuñu ko parce que boo waree nit ndomba yow mi ko wër ndomba da ngay yaakaar ne yaa ngi yaa yaa jekku nga quoi mais toujours tam yaa ngi si danger c'est boo xoolee man ay temps daan naa bëre noonu. si suñu école mun naa la war ndomba mun naa la si mboot ay mboot yu yomb parce que mun naa téye sa loxo nii téye la nii daw daw deg ñaari pas def demi flexion ba nga ba kii su su su ba nga ba nga bu fekkee dama bëgg génn su ma defee nii su ma liyee nii boo bàyyiwulee yaay dem su ma neexee mu ubbi sa loxo parce que wër ndomb dafa am ñaari façon am bu ñu la waree ma nii lañ lay jàppee am yaam bu ñu la waree ndomb nii lañu lay jàppee xam bii kenn mënu ko dindi mais bu dee bu dee bii mun nañu dindi sa baaraam benn par benn ba nga bàyyi bu dee ku la ëpp doole su ma neexee mun naa bàyyi ba nga korosee ba ba sa loxo dugg sa loxo bii dugg fii nii su ma si duggee am na nu may def su ma si tëddee nii su ma tourné yow yaa may jiitu su ma neexee mun naa la nga dugal fii bu dee fii nga ma keppee mun naa téye nii ba mu dëgër ma déclenché sama mbootu deuxième paie ñu uddi ko man na yow ñu rulle waaw mais yow nekk si ginnaaw bu boo wëree ndomb rek yow yaa war a daan. mbër mi yan mbëru tey maanaam mbëru champion yu tey yii yan façon entraînement la ñu war a ci la ñu nekk yoo xamante ne mooy tax ñu nekk en forme toute la saison fii làmb ji di commencé ba fi ñuy tëjee. waaw xam nga entraînement père entraînement yow yaa ma gën a xam xam naa ne du la si wax loo si xamu mais comme man la ñuy laaj. man lu ma xam hivernal dafa am hiver dafa am gis nga période boobu bu jotee li ngay liggéey si ngay liggéeyee lépp hivernalu hivernalu hivernalu muy musculation période bu naa saison bi tëj naa tëjul période boobu noonu ngay def sa musculation di def say diin di def say plage ba saison bi bu muy jege si booy ubbi nga dem di boo def musculation contact musculation contact boo nga xam ne bu combat taxawee rek yow dernier réglage rek ngay def fekk pare nga physiquement mais tamit euh, lépp looy mujjee def rek contact ngay def parce que boo demee ba éco ba euh, arène ba bëri rek ngay def kon mbër mi lu mu war ëpp si liggéeyam mooy contact. sama dernière question ba tey dafay euh, laaw jëm ci entraîneurs yi nekk ak sa entreneur di entraîner moom pendant juróom benn weer am combat rek. takk say bagage damay dem Amérique damay dem France wala maa ngi dem Espagne xeeb sa entraîneur la wala bëgg lu gën a baax li sa entraîneur def doon def la. naa ne du xeeb sa entraîneur du bëgg lu baax lu gën a baax lu sa entraîneur doon def mun naa mun naa ne waaw wala mun naa ne déet parce que entraîneur fii Sénégal lañ nekk am nañ yenn matériels yi. mais am nañ li nga xam ne tubaab yee ko am ñun amuñu ko. Ah, hmm? non ah. non ah, si waxuma si côté boobu. boo demee tey am na ñi nga xam ne tey fii nii man gis naa la ñoo ngi def ay moniteur fii te pour naa jànguñu ko làmb ji yow gis nga fi ñi nga xam ne dinaa la entraîneur la mosu ñoo bëre ku pratiquer ak ku ku ku def théorie mënu ñoo yam yow mi jàng bëre bëre ak yi nga xam ne dafay ñëw rek naan la jàng naa ko fii ak lii mënu leen yam xam-xam. noonu la demee su tubaab bi tey bu ñu demoon ñun chance bu ñu am foofu noonu di nga dem di nga tëdd tranquille doo wuyu boo sonn yow gis nga fii téléphone yi nu muy dewee amul foofu boo demee amul maay ah koñ bi de su mu fi jaaree dañ fi sotti saafara wala duñ fi sotti saafara xam nga loolu doo ko xalaat foofu doo dox si mbedd bi naan waaye kii de mooy diw kii mooy diw ñu lay sonal si mbedd mi yooyu yëpp amul foofu chance boobu nag moom moo nekk foofu te amul fii beneen bi mooy seen lekk yi am na lekk yi xam ne ñoom ñoo ñu gën a ëpp moo ëpp vitamine suñu lekk te te lu ndaw la te ñun amuñu ko fii yooyu yooyu chance boobu lañ am ñoom te ñun amuñu ko fii